fumne ni tas lañ bëgg bi wër wi amé ñaar fukki fan ak euh, juroom ñeen ñu dajé wat waxtaan euh, gis ni revendication yi ñi waxoon jox ko wa polymètre jox ko administration hôpital bi ñu gis ni dara changé wu ci ñun nak nag loolu mënuñu ko dégg ndax contrat bi bari na ay jafe jafé yu ñu indil ginnaw contrat bi d'abord baaxul wante téwul liñ ci bind ñom ci seen bop respecté wuñ ko donc euh, yooyu moom ay jafe jafé ndax bi ñuy signé contrat bi conseil d'administration mi nga xam lu fi xew ci hôpital bi mo ci wara a joxe ndigal mu doga am contrat ba signé nañ ko loolu di benn ñaar ñi nga xam ne ñooy liggéey ci rajo ci rajo boobu rajo dafa am lu ñuy wax rayon X am na dose boo xam ne boo ko tegee nit ki dafay dee am na dose boo xam ne boo ko tegee nit ki daf koy indil ay cancer wala yeneen mu toll ni kenn mënul xam ban dose la ñuy jël weer wu ne ndax am na feebar bu tàmbali ci seen biir yaram kenn xamu ci dara loolu nag ñu ni loolu mënut a wéy nit ki buy liggéey war na liggéey ci sécurité beneen problème bi mooy problème maintenance à part yi fa nekk dina ya dina paan yàgg-yàgg kenn du ci wax dara scanner bi par na fi juróom-ñetti weer euh, appareil mammographie bi nga xam ni moom la ñuy seetoo cancer du sein ci jigéen ñi nga xam ne law na ci dëkk bi appareil boobu par na depuis ñetti at kenn waxu ci dara kenn jéemu ko defar euh, service de rajo bi bu ay heure wàcc jotee boo fa ñëwee war a def rajo doo gis ku la defal rajo doo gis ku la defal scanner parce que ñu ko daan def toog nañ ñeenti weer ñu leen dem nañ ku ne toog sa kër euh, hôpital bi li muy am ci bénéfice Euh, polymètre néew na néew goo xam ne hôpital bi gisu ci boppam ginnaaw loolu ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen seen loxo jotul seen ginnaaw suñu buggee def rajo jafe-jafe bu nekk la ñuy am ndax polymètre du leen jël en charge soo amee malade boo xam ne dafa nekk ci lalam mënut a déplacé wu war a def rajo polymètre du ñëw defal ko rajo donc jafe-jafe yooyu yëpp yokku ci nag waa polymètre génn benn bataaxal ne chef de service bi bi nga xam ni ay cëram ak yelleefam décret bi nga xam ni moo indi euh, réforme hospitalière moom moo ko jox ñëw teggi lépp jox ko waajoo xam ne gestionnaire lañ ko tuddee ne ko yaay responsable médico technique. loolu nag day loo xam ni mënuñu ko nangu ñu ko seet. donc loolu lépp nag. moo tax tey intersyndical 3S bu hôpital de Mbour ne dafay def sitting 9h ba 13h. biir hôpital ngir polymètre jóge fi. say bi tas tasar ku ne dem yoon. ndax conseil d'administration yëgul. syndicat yi ci bëri d'accord ñu woon ci contrat bi. Euh, mais am na léegi bi ñu demee ba sonn nag ba dund ko ba sonn. ci lañ nag doy na sax dafay doog a taxaw. ndax syndicat médecins yi am na ay yu mu jot a jot nañ fi def ay grève mois de juillet juin bi. waaye indiwul dara. ci la ñu lëkkaloo nag ne intersyndical la ñuy jël syndicat yëpp taxaw xeexan tey mooy première phase bi dañ doon toog ñaxtu wan na waa Sénégal que am nañu lu ñu naqari bu ñu toogee tuuti nag xool suñu ñaxtu bi jëriñul jurul dara bu boobaa xool yeneen pexe yoo xam ne syndicat yi am nañ ko tàmm nañ ko di def ba xam ndax ni dina indi dara am